seen parlu moo ñu ko may waaye seen jàpp bi ngeen jàpp ci suñu xeex moo ñu ko may ndax su dul woon loolu rek defe naa lundi 8 def na léegi presque léegi mu def weer bu dul woon seen taxawaay lundi 8 googu lañuy ñuy jël Ousmane ko ne ko caax tey duma toog fii di waxtaan a yéen ñu leen ciy gërëm di leen ci sant ndax loolu kóolite gu mag la te defe defe naa mun nañ ne guléet la ci senegal guléet la ci senegal nguur yëkkati li muy yëkkati bugg ko sotti ci nit ak ko munti doon mu ne lii duma ko nangu parce que dañoo respecté wul samay droit nguur ga dellu gannaaw ba la ñu bëggoon def sottiwul loolu nag jàngat gu bari lañ ci jàngat te ñuy jàmmaloo it jàngat gu bari lañ ci jàngat mooy projet bii nga xam ne ñun moom la ñu andi présenté ko Sénégalais yi ah am na fu mu toll Sénégalais yooyu fu sore sore sore ba ndaw ñi mag ñi jigéen ñi def projet boobu seen projet bopp mu jaral leen ñu xeex wala ñu sacrifié wu may wax ni projet boobu du Ousmane Sonko donte Ousmane Sonko am na ci solo. ak fu mbir mi mun a mujj ak lu munti doon dafa am lu ñu ji te loolu meññ na li ci des mooy ñu mën a witti kon loolu kenn mënatu ko fay ci Sénégal moo tax ñun bi ñuy dugg ci projet politique dañ ne du projet personnel du parti personnel waaye projet la boo xam ne ku patriotisme cest à ku bëgg sa réew nekk sa dënn rek ku bëgg Afrique nekk sa dënn rek projet bi sa projet la seen taxawaay googu moo moo ñu may ñu nekk fii tey ba war a mën a wax ak sénégalais yi lu bëri am na waaye seen taxawaay boobu moo ñu may bali tubaab di wax ni gagné nañu la premier manche mooy su doon match de football dañ naan premier mi bi gagné nañ ko ndax su ñu amul woon loolu du ñu am jot gu ñu jàkkaarloog sénégalais di wax ak ñoom. ba tey biir na ci bopp sénégalais yépp nag même ñu àndul ak ñun ñépp dëppoo nañ ni lii ab complot la suñu nangu woon ñu ta taftafee ñu noonu ñu ko bëggoon def kon du ñu egsi fii mu des nag naka lañu ñu war a doxalee li ñuy dëgmal ndax boo nekkee ci xeex jàkkaarloog ñoo xam ne foo natt doole seen doole weesu na ko ci xarala yi ñu yor ci alal gu ñu yor ci lañ yor ci ay service moo xam euh, euh, euh, administration moo xam police moo xam justice moo xam leneen ak leneen ñu téye ko seen loxo moo xam it lu ñu yor ci ay moyens yoo xam ne mën nañ koo jaarale ci ay nit ñoo ñu dem toogal di leen toogal leen di leen wax loo xam ne dañuy fexe ba nërmal xelu senegal yi li ma ni wax yéen senegal yi a ma ko gën a xam. soo jàmmarloog ñu mel noonu dafay laaj saa su ne étape boo toll nga taxaw xayma xool lu mu méngoog démarche parce que xeex bi doole dina ko gañe de waaye li koy gën a gañe mi ngi jóge ci xel xeltu boobu nag nga xam ne ñoo koy saxal te wéetuñu ci moo ñu andi ba ñu xool ni ñii ñu jàmmaar lool muy Macky sal ak ñi mu ay taalibe bi muy yónni ñu koy defal lan mooy objectif am mooy di lépp lan la ciy wut parce que loolu buñ ko leeralee rek lépp lu ñuy doxal ci xeex bi dinañu xam fu ñu koy teg ma tontu ni ñoom dañoo amoon li tubaab bi wax objectif principal mooy dañu amoon. lu leen tax a jóg loo xam ne mooy seen yitte bi gën a rëy yitte boobu mooy lan mooy fexe ba ala kulli xaal 2024 Ousmane Sonko du doon candidat élection présidentielle li ma wax dafa am solo ne ko ñëpp jàpp parce que suñu comprendre lu ñoom li ñuy doxale rek dañuy bàyyi xeexu xeex bi am solo bi nekk ci xeex yu ndaw ndawaan yi lay seen mbébét ñoom la tax a jóg ak leen tax a dugg ci lii lépp mooy nu ñuy fexee ba gàllankoor Ousmane Sonko ba mille vingt 2024 fa ñuy taxawee di laaj réew mi moom du fa taxaw di ko laaj. nañ ko defee woon ci gannaaw ak ñeneen muy Karim Wade ak xalifa sal loolu rek mooy objectif bi bu objectif boobu weesoo am na lu tubaab jox wax objectif secondaire mooy loolu mooy seen farata ñoom am na peut-être sunna bu ci tegu. mooy nañu fexe ba gàkkal ko ba tilimal ko ba senegale yi ne kii du nit bu baax ñaar yooyu mooy seen objectif bu njëkk ba nag moo leen gën a tere nelaw moo leen indi lii lépp boo xamee loolu nag ca doxalin bi ngay doxal dangay fexe ba may leen ñoom lu leen yombalal loolu moo tax ñetti fan yi ñu jóge déglu naa ñépp fu ne Sénégal nit woo na ma fa fu ne Sénégal nit jóge na fa mu jaral ko léeg mu taal otoom wala def délégation walla bokk ak association wala parti politikam am démb fii ci salle bii recevoir naa si waa opposition nga xam ne dañoo bokk ci FRN recevoir naa waa société civile ba ci tey la mujj ak ñoom Alioune Tine recevoir naa fi ay kilifa diine ñoom Mama Tar ak ñoom Abbé Jacques Seck naa fi euh, ay nit yoo xam ne bokkuñu ci benn kuréel waaye ñu senegal ñor la resevoir naa fi dégg naa fi walla woo nañ ma ci kilifa diine réew mi yépp ñépp nag amul tarixa bi amul diine bi ci ay yóbbante yoo xam ne yegsi na ci man waaye ma doore ci li may wax li nga xam ne mooy li ci ëpp solo mooy ñi nga xam ne damay liggéey ñoom ñuy samay avocat parce que dossier bi nag dossier politique la téeméer boo jël juróom-ñett fukk yi la waaye am na ñaar fukk yoo xam ne ci yoon la la ci war ci politique nag mooy li ñu def ba tey jii la ca war ci yoon mooy li ñuy liggéey ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci loolu muy suñu avocat toog nañu waxtaan ak ñoom ci ñaari réunion yu gudd gudd gudd muy dimanche bi passé ak tey jii ma déglu leen bu baax a baax a baax a baax loolu ñépp ñu ànd ak ñun képp ko ànd ak ñun dama bëgg loolu nga boole ko ci li war a tax tey ñu orienté suñu xeex ca lañu waxtaan la ñu jàpp mooy benn dossier bi ñu tax bi leen tax a jóg ñu ne dossier siif la dossier boobu dara newu ci dossier boobu juge ak nu mu jéng jéng jéng jeng bu ñëwee ba ci biir lépp dina feeñ wala lépp feeñ na ba noppi sax amul juge boo xam ne war naa mën a ne lii dinaa ci condamné nit loolu dàqantewul nag ak li ma wax bi may ubbi ni man wóoluwuma suñu justice waaye wóolu naa ay magistrat yoo xam ne dañ leen ni tànn ci biir waaye ñii suñu bëggee def seen yëfu salte depuis procureur moom tuddatuma ay turam comme mu ngi toppatoo sama ba ci toppatoo sama biir ménage di woo ay nit di wax lu jëm ci sama biir ménage procureur boobu mënatul assurer benn garantie ni procureur la république la yàkkamti gu mu yàkkamti woon xam nga gaynde gu xiif yàkkamti gu mu yàkkamti woon jot ci Ousmane Sonko moo indi vice de procédure yi am ci dossier bi yépp wala bukki bokk ndax sa jox wax ko gaynde sax day rëy waaye procureur boobu ba ci la ñuy tànn ci juge d'instruction ba la ñuy tànn ci juge yu war a àtte état wala Macky Sall ak ay ñooñam bu ñu yëkkatee ab dossier loolu yëpp dañ ciy tànn ñu leen fay toogal ba defal leen li ñu bëgg a def moo tax dama ne li ma wax ni dàkkantew dàkkantul dàkkantewul ak li ma njëkk a wax waaye ñu dellu ci dossier bi ñoom li ñu jàpp mooy dossier bi dossier bu vide la dara newu ci te li Sénégalais yi gisagum yépp jëm na ci côté boobu comme am dossier bi dara newu ci ñun am na benn piège bu ñu war a moytu benn ndëgg sërëxal mooy ñu may leen fu ñu créer beneen dossier ci biir dossier bi parce que loolu mooy seen bëbët yépp nag tey xam nañ ni dossier bi yëkkati nañ ko defe naa mujj naa diis ci ñoom suñ ko mënoon yebbee yebbeeku yebbee ko waaye dañoo ñëg ànd ak jàpp nañ ni bu leen bii rëccee dootuñu am fu ñu mën a jàppee Ousmane Sonko moo tax ñu continuer li ñuy def la ñu gis ñoom mooy bu ñu leen may fu ñu créer dossier ci biir dossier loolu mooy lan mooy tey bu ñu nee demuñu uyu ji def nañ ko benn yoon xeex ak ñoom yàlla am lu ñu ci may nun xeexuñoo ak ñoom ndax sama kër gi génnuma fi waaye ñi nga xam ne sopp nañ ñu te kenn joxu leen mot d'ordre ñoo jóg spontanément ñoo ne bërët jóg ne ñun ñëpp nañu daje ji kër Ousmane Sonko gis nañ lundi huit li fi xewoon waaye tey bu ma dellu si ne dew ma ñu jël seen arme yépp yónni ko fii lañuy njëkk a def ma leeral ko ci bopp senegal yépp mooy ne dinañ ko kole li ñuy tuddee de rébellion rébellion mooy koo xam ne juge da la yónni convocation nga ne dew ma ñàkk dem nga ci jëm jëmm ji ne dew ma loolu du délit waaye bu ñu yónnee seen armée ne dem leen jël ko foo jaar même soo nee defuma benn résistance ñu fexe ba créer un de violence bu ñu wëlbati koo dem ne dafa doon résister donc nañ ko coller rébellion bu boobaa nag lañ doon ut ci dossier bu njëkk ba te mënuñu ko am dinañ ko gaaw a am fii ndax flagrant délit lañ lay yóbbu àtte la def la 6 mois daal di taqal sa casier jeex na kon xeex bi léeg-léeg da nga ciy boole xel ndax ñoom bu ñuy def seen dëgg sërëxal du doon benn dañ koy tal dañ koy lal ne bu rëccee ci biir dañu fexe ba am ko ci bii loolu nag mun naa ne door nañ ko may wax Sénégal yépp nag nii jamono ji ci toog tembe gannaaw dossier bii ñu tudd muy dossier siif ubbi nañu beneen dossier boo xam ne nee nañu appel à l'insurrection mooy dañoo woote fippu fii kenn mosu fee woote fippu dañu ne buñ ñoo buggee jaay doole ci loo xam ne suñu àq la constitution may nañu ko danañu bañ ñu nit ba fu suñu doole loolu kenn mënu cee attaqué kenn au contraire ñoom ñoo def li ñuy wax délit de provocation waaye tey jii ci première cabinet bu sàmba Sall ubbi nañ fa dossier bu ñu tuddee noonu ne dafa dañoo woote fippu ci dossier boobu la ñu jàppee ñaar fukk ak ñett ci suñuy ndaw ba tey ji ñu ngi ñu ngi euh, euh, Cap Manuel waaye bu ñu jàppee ñaar fukk ak ñett yooyu ba noppi dañu ne am na keneen koo xam ne dugalaguñ ko ñu tuddee ko x x dellu si na may wax sénégalais nag x boobu lañ ca jublu ñoom mooy Ousmane Sonko xam nañu seen dossier bi du sotti lañ ca jublu mooy wëlbatikuwaat gannaaw liy xew ci fan yii ci huitième euh, juge huitième cabinet bu dee la ñu bëgg a def sotti na te ñu am ci la ñu bëgg ñu gaawantu yokk ci bii ne egsi bu ñu doon wër moom la ndax moo woo xale yi ne leen génn leen kon ñépp nañu xam ni seen pexe yemul ci benn pexe yi dañ ko lal beneen ñetteel bi ñu doon waajal mooy suñu ne Ousmane Sonko neen du dem ñu indi fi GIGN wala BIP fexe ba jaxase affaire yi bu ñu génnee nag ne dafa doon résister moo tax dañ ko yokkal délit rébellion jugé ko flagrant délit dem tëj ko toujours ci gis-gisu avocat yi mooy dem ak ñàkk dem benn résultat bi la mooy boo demul it dinañ fi yónni armée ñi fi nekk dinañu résister peut-être wala suñu résister wul xale yi dinañ jóge fële résister deret dina tuuru waaye yàgg yàgg yàgg danga dem kon pour bañ leen may porox ndoll yooyu nga xam ne mun nañ ci jaar pour génne leneen loo xam ne loolu. day yomb ci ñoom ni dossier bi jafe ci ñoom moo tax avocat yooyu ñoom ñépp bi ñu dajee ñëw taxaw ñaan ñu insister joxe seen conseil ñu déglu leen balaa may génn ci avocat yi dinaa leen jagleel ay remerciement jaajëfal leen ndax sonn nañ torop ci dossier bi bi mbir mi dooree ba léegi amul bëccëg amul guddi fii laa woo ñu bàyyi seen yitte ma lim leen muy ma soxna kan Kane maître Ciré Clédor Ly maître Khoureyssi Ba maître Demba Ciré Bathily maître Youssouf Camara maître Joseph Étienne Dione maître Bamba Cissé maître Ousseynou Ngom maître Ndoumbé Wane ak maître Djibi jaañ waaye it di remercier ñi nga xam ni toujours ci avocat yooyu bokk ci dossier bi waaye gën a sonn ci suñu ndaw yi nga xam ne jàpp nañ leen suñu jigéen yi nga xam ne jàpp nañ leen tey jii defe naa am nañ lu mat 53 muy juróom fukk ak ñett yoo xam ne ñi ngi ci loxo Macky Sall ñooñu maître Amadou Sow maître Babacar Ndiaye maître Abdoulaye Tall maître Théophile Kayosi maître Michel Simel Bass ak maître Magna Silva ma leen di jaajëfal ci sama tur ci turu parti bi waaye ci turu sénégalais yépp mbokk yi gannaaw bi ma waxee li nga xam ne mooy taxawaay avocat yi ma dolli ci nii ñëpp intervenir nañu wax naa leen di parti politique opposition yi daje ñoom ñëpp fii ñëw ñaan ñu ko wax naa leen li nga xam ne mooy suñu kilifa diine yi ndax ñoom dañu wax ni ay régulateurs sociaux lañu wax naa ko keroog ñu bari dañ naan nañu génn wax waaye am na fu ñuy waxee fu nit yéegut te ormal seen bopp ñun ñu ñëwaat ormal leen moo tax li olof naan ku ndëbbi ne rey sa maam bu dee da ngay ñaanoon démb ñaan barki démb dégluwuñ la balaa ngay génnaat di wax di nga xool lu bëri waaye yónnee nañu ci ñun ñoom ñëpp daje mu jaar ci suñu sëriñ sëñ Abdou Mbàkke bu Daaru Muxti daa di ñëw wax laa même chose may wax nit société civile bi def nañu la même chose suñu parti bi ñu bokk def nañu concertation département yépp ñu laaj leen lu ñu xalaat euh, diaspora bi ñu laaj leen lu xalaat bureau politique bi wax li mu xalaat ay avis la yoo xam ne lu partagé la waaye li ëpp ci avis yi am benn boor bu ñu jëm dinaa ci ñëw léegi ñii ñépp nag li ma ci gën a touché man muy kilifa diine muy société civile muy keneen gannaaw bi ñu amee yitt ci réew mi li li ma gën a touché mooy seen yitte bi gën a rey mooy li tubaab di wax sama intégrité physique mooy ñu bañ a maye fu ñu mun a jaare pour li ñu bëggoon am ci justice sax boo moytul ñu amee ko ci neneen ndax dégg nañ fi kaawu Xaadim Bousso dégg nañ fa yeneen kaa te ci loo xam ne mën nañu gañe combat bi ci neneen ñooñu ñëpp ma ne leen seen yitte ci ñun yéeg nañ ko te dafa ware ni projet bi nga xam ne moom lañu ñu présenté yi ñor na leen projet boobu seen projet la lii lépp nag moo tax ba ñu waxtaanee déglu ñépp ñu wax sénégalais yi ni bu soobee yàlla ëllëg ca waxtu bi ñu ko waxee dinañu génnee fii suñu kër dox ndànk dem déglu lan la juge huitième cabinet war a wax ak nun waaye loolu tekkiwul ni dañoo deltu gannaaw xeex bi commencé sax te te tekkiwul it ni mobilisation bi bi exceptionnelle bi nga xam ne am na Sénégal te ñu gëjoon ko gis dina wàññeeku tey la mobilisation war a gën a bëri tey la mobilisation war a gën a am doole tey la militants yi ak militantes yi ak sympathisants yi ak sénégalais yi nga xam ne ñépp dëgg rek moo leen ñor tey la ñu war a gën a mobiliser parce que bu ñu bëggee jaarale mbir mi feneen dina am neneen nu muy demee teyit tekkiwul ni li ñu waxoon ni suñu droit ñun à la résistance suñu droit individuel constitutionnel jóge na fi waaye tekkiwul ni lii nga xam ne am na ci dossier bi yépp te avocat yi wax ko député yi wax ko ba suba député yi nañu déposer recours conseil constitutionnel ñu war a signer signer nañu loolu lépp duñ ko bàyyi mu jaas parce que lañ ca war a def ci yoon danañ ko def muy fii muy sedd CEDEAO muy feneen ak feneen may woo nag sénégalais yi ndax duma ko wax ak Macky sal ndax ku am xol am yëg-yëg ngay waxal ci lu jëm ci lu jëm ci nit ñi ñii nga xam ne jaay nañ leen doole muy suñu otage politique yi ne sénégalais yëpp àddu na leen Macky sal bàyyi rawatina nag ñi nga xam ne jigéen lañu tey jii dañoo fas yéene woon démarrer grève de la faim ndax ñu ngi leen di pamti pamti ku ñu jàpp àjjuma ba tey yóbbu leen delloosiwaat leen yóbbu leen delloosiwaat leen déglu sax defu lañu defuñu leen ko lépp pour métital lépp pour métital loolu taal na ay réew yu bëri parce que jaay doole ci anam yi baaxul man maa leen ñaan ne leen bu leen grève de la faim ndax dama bokk jàpp ni bokkul. ak suñu gëm-gëm waaye li gën a garaaw mooy ku toll ci xeex da ngaa soxla sa doole waroo affaiblir sa bopp te am naa ñëwante bu rëy ci ñoom nag ndax dama koy natt ci sama bopp moo tax ma ñaan leen ko waaye du lu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu bëgg a génne ci xeex bi may wax tamit suñu police nationale wax naa ko keroog ci sama discours police bi ñun ñëpp la fi nekkal am na lu xew fii keroog sama kër te duñ ko bàyyi ndax def naa def nañu lettre démenti retiré waat ko lu toll police nationale ñu war a jël jumtukaay yoo xam ne tey waroon nañ ko yóbbu ci xool ni ñuy xeexee Samba boo yi ni ñuy xeexee terroriste yi ñu ñëw teg ko ci buntu kër Ousmane Sonko di ko espionné di ko filme moom ak ay njabootam ak képp ku dugg ci kër gi ak ku génn ci kër gi loolu rafetul ci Sénégal. te du kenn ku leen yónni ku dul Macky Sall ci dossier boo xam ne ne nañu dossier dossier privé la bi loolu amee ba tey harcelé nañ ñu menacé nañ ñu dañuy ñëw par force dugg ci kër gi parce que dañoo am jumtukaay bu ñu ñàkk bu ñu bu ñu bu ñu wàcc fi keroog te il faut ñu jot ko bi ñëwee fi nee naa leen gisuñu jumtukaay boobu loolu doyul yónnee nañu ay médiation waaye ba tey ñi ngi ca loolu ñun nag dinañu constater par voie d'huissier su jaree ñu porte plainte police nationale dañ ko def xam naa ni police nationale wax naa ko keroog ay patriotes ñoo ci nekk ñoo ci ëpp waaye les gradés de la police laay wax bu leen nangu ñu joué leen rôle boobu compétition politique c'est entre les acteurs politiques suñuy jumtuwaay réew bu ko jël di ko boole ci compétition politique day indi compétition déloyale Macky yor police yor gendarmerie yor lépp war a jàmmal ñoo xam ne seen parti rek dañu yor ak seen discours loolu rafetul ci réew mi. la tax nag ñuy insister ñoom xam nañu ñun xam nañu buñ ñu wax loo ngir yàlla waaye loolu dafa doy nañu bàyyi di utiliser moyen état bi di espionner ay citoyen tey amul benn citoyen sénégalais boo xam ne yaa ngi ci sécurité ñépp yi mu ngi leen di espionner ñépp nag waxuma la sax ku ne ànduma ak moom waaye ñi mu àndal sax mu ngi leen di espionner ba kañ dañ koo dénk lii pour mu tabax réew mi na yem ca loola di wax tamit nii Sénégal amul kenn koo xam ne tey umpale nga umpale nga ni lii complot la ak manipulation médiatique bi ñu def yépp chargé plateau yi lu ne ñu wax ko tey soo jëlee sénégalais téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi nee nañ la lii complot la te bis bu nekk nag yàlla tojal leen lu bees loo xam ne foogewuñ ko woon ba tey ku déglu live Pape Alé bi keroog bi may wax junj naa ne laaj leen Macky Sall ndax xam na aji Sarr seede bi tey ñëw na ndax xam na ko moom Macky Sall ndax recevoir na ko en tout cas génn na ci génn ñu aji Sarr na ko te benn autorité APR moo ko fa yóbbu ci lim leen wax moom mi ne moom amul taaw comploté ma wax sénégalais yëpp ni ki ngeen dénk réew mi mu ne mooy président de la république ci day wàcc ba ci caniveau yi di comploter contre ses adversaires politiques ci nu mu gën a ñaawe loolu fës na tey fi may daanelee nag mbokk yi mooy di gën a soññ yéen ñépp ma leen gën a soññ xeex bi ñun de mun nañ ci ñàkk ay dunq waaye Macky Sall dina ci ñàkk nguuram ci nii wala ci nële dugg na ci loo xam ne amul tey benn sénégalais bu ko nangu wala bu ko rafetlu amul kon lu ñuy xeex la ba fu xeex bi yem waaye xeex bi nañu xam ni ay temps la xeex bi ay stratégie la xeex bi dafa am fu mu jotee foo xam ne lu mu laaj rek ñu xam ni lii la laaj moo tax ma ne mobilisation mobilisation mobilisation mooy nañu takku nañu takku nañu takku fu ñu doon nekk benn. nañ fa doon téeméer fu ñu fa doon nekk benn ci mobilisation nañ fa doon téeméer di gërëm nag mouvement citoyen yi également ñi nga xam ne ñëw nañu muy ay FRAPP Y'en a marre euh, euh, docteur Babacar Diop FDS ak euh, Doyna ak Ñoo Lank tous ces mouvements citoyens parti politique yi nga xam ne jël nañ seen initiative ba démb am nañu ci def conférence de presse ñoom docteur Cheikh Tidiane Dieye Cheikh Bamba Dièye ñoom euh, euh, Bougane ñëpp ak ñi vraiment tous les partis politiques su ma limee rek juum ñi taxawoon assemblée nationale lu ne ñu daj ci lu ne ñu daj ko ci ñoom ñëpp nag député opposition yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ne leen nag mobilisation bi ça fekk fait commencer mbokk yi lii laa bëggoon indi ci sama déclaration di ko faram fàccee ci français ci nu mu gën a gaawee. Euh, daal di yeewi ñëpp ndax euh, defe naa mi ngir commencé guddi chers compatriotes euh,